Si ñak ci auto bi 20 000 francs bu crevé ya koy 20 000 francs ta bu wér dé 5 000 francs 5 000 francs lañ lay fay par dajalé ko 60 000 francs te yow auto bi yow rek ñak 15 000 francs président nak waxon nañ né revaloriser à 100% mais jusqu'à présent dafa am ñu jot am ñu jotul indemnité résidence dekk 4 4500 la par mois ce que am fenn fi ci sénégal 4500 fan nga mën a am néegu ñax sax mënoo ko am ci 4500 ci Sénégal formation des chauffeurs recrutement yi tamit souvent recrutement yi dangay am ministère bu ne day am quota te contractuel yi ngi fees dell ci ministère yi bu recrutement jotee kenn ku ne say mbokk say mbokk nga koy jël recruter leen ko bu ko defee contractuel yi nekk fa ba léegi dañ fay nekk ba màggat du ñu am dara. waa pour mu saafaraal ñu rek pour ñu saafaraal ñu sunu lii rek moom lañ ciy xaar moo tax ñu jóg. biñ jógee amical lañ yoron bind nañ nguur gi fu wara bind bind nañ fa fu wara jaar jaar nañ fa fu wara dem dem nañ fa mais jusqu'à présent dara kiwul bind nañ audience président de la république maintes fois mais euh, amuñu retour ñu fassé yéene nag taxawal syndicat bi amon na lo amon na ñi ko yoron dañoo décédé légui nak ñu motax ñu jog taxawal syndicat bi def assemblée générale bi élire bureau taxaw nag euh, jóguñu nag pour xeex wala pour kii wala pour kii dañoo jóg pour négocier ak état nu ñu yokkoon ne sunuy droit li ñu moom ñu jël ko.